ñoom instant bi. bu jëndee waa fu waa kumba ma ko bëgg ma bay ama kumba yi ci mbaa. waaw. leen di xaj daal fooy ñaaw. sunu sekki sama. yaay junniy mbër yaay yi bànni ngoon sanu ci gijjoo. Fatima Tandoo yi yi bànni ngoon sanoy sa maam. sunu sanoso ibrahim wasli won ne jeg min tamati anani ka waccinaani woni mi ci mbaw ni nga man non yayi mi jubbi way na fanu yayi xari gay gam yayi ala ba ci dumbur yayi mi ja ñoko ni yayi mbay di se yayi jam ko jangaloon nima boy way dakar de ci boli fanu yayi xari gay gam yayi ala ma ci dumbur yayi mi ja ñoko ni yayi mbay ni am nga ni bi ci may ko dunar ak faa mbay Code Mar faa mbay Code Mar ak wari mbay Code Mar bokk ndey baay wari mbay moo jur fan ruwaat ak doom man xuj ya njaay maa doom wadde yaayam bari jaan doom wadde kursis doom wadde kursis moo jur góori korndooy ak markati ndooy markati sa maam ak kumba jokkul ndooy Alassane mbay ndooy bokk ndey baay Binta Jóobay sa maam nu jël sa jafe jafe ba yom nañ ko biñ ca joobi jafe joob jéng ko laamin si la mi natt booy laamin mi natt booy maamu faal si la mi natt booy maamu faal si la mi natt booy xaalima si la mi natt booy mata si laa seen baay mata si la xarit a yaa jël sañ Dakar fooy jaar ba ñaaw njoolo njoolo njool ay njool nga njëgën ngay wow sàmb lay gémi dangaa ma ne xanaa bay biram ndooy ma yóbbal ndooy bay biram may sa fooy jaar ba ñaaw bay biram lip taaw njoogu di bér maalik njoogi di njoogi wakaam njoogi saram ba ko ba da xubeem ram njaay ngay jëmbe dini beñ laaw la cat laaw da bat la la ma lam laaw la ma xel waay li mu ngi yaa moom bu nu yàlla bëgg na lu bàyyee ak yow ay jaraaf dundal ba mu yàgg lool say di baawaat jaraaf nga ñaari yoon ni nga mën am ak korne ngir gën dooleel taxawaayu askanu lébu ak wattu lii di ay moomeelam ci mbooleem fukki penc ak ñaar yi nga xam ni ñoo nekk ci diwaanu Cap-Vert waral kii di El Hadji Abdoulaye Samb di doomu lébu dëkk ci yoof daal taxawal kuréel gu mag di pekk mouvement bokk bëgg-bëgg ngir daal di jàmmarloog ñi nga xam ni dañu taxaw temm ngir naxsal wala ñu daal di caxat-caxatee ak ak yelleefu libu yi fii ci biir réew mi rawatina ci diwaanu ndakaaru gi nga xam ni ñoom ñoo ko sos lamu ci namm nag mooy ñu daal di jàmmarloog ñi nga xam ni dañoo fa yéene faagaagal mooy moylu askanu lébo ci loolu nag ki nga xam ni mooy jaraaf Youssou Ndoye nekk jaraaf de cap moom nag moo nekkoon invité d'honneur ba daal na teew ci li nga xam ni mooy ndaje ma moom nag daal dina fay yëkkati ay kàddu ngir gën a ñaax ñi nga xam ni ñooy ay ñoñom te ñu bokk ak ñoom communauté lébu te ñu dëkk ci fukki penc ñaar yi ngir ñu gën a am pas-pas ak ndëgër laay ngir jàmmaarloog ñi nga xam ni dañoo jóg rek ngir naxasal li nga xam ni lébu yi ñoo ko moom depuis si maam ba fii jonni tey nga ni guddi gànnag may ngaan sala yayu binub doom yaxanaa téeru fi ngaan mi yu tëggu yi muy gaal yi ëttub salaama jow maa ngi laaj ay dem naa ba néegi yof di laaj te ngaan sam ne leen ngaan ni gaan nag mooy ngaan saala yaayu benub ji saala yaayu benub doom xanaa ngaan jeeru fi dem naa eh, ba néegi ngor geej di laaj te ngaan sam na gani gue ganeng guy gaan ak maye nga am sala yaayum yenub doom sala ngam yenub doom xanaa teer fi ngaam iya yëtëb yi muy gaal yëtëb iya sala muy jow maa koy laaj maa ngi laaj nga ni guy gaan ak maye nga am sala lebu ba na leen ngaan ne guddi gaan nag ngaan may ngaan may ngaan sala yu doom ñi sama doom ñi lay seet ngaan ngaan samba ci loon dëgg sambaay samaam ngaan ma jëgoon nii ngi tubaab jalaaw jëm ngor ay way booy ngaan sambay joogal la ngaan mi ngi tëggu yi gaal yëpp sanaan mu ne jëw maa ngi koy laaj ngaan sambay joogal la Jul Sagal mu dem géej Jul Sagal ay ay mu teer ay Jul Sagal mu teer ngaan Jul Sagal ay mu teer Jul Sagal ay ay mu teer Jul Sagal mu teer ngaan Jul Sagal ay mu teer Jul Sagal mu dem géej Jul Sagal ay ay mu teer ay Jul Sagal mu teer ngaan Jul Sagal alsaani siini samba am alsaani siini jaani juur sagal yaay mutiir juur sagal lebu juur sagal ayaay mutiir ay juur sagal mutiir juur sagal yaay mutiir am na alsaani siini mbeng amal saani seeni ndiir ay amal saani seeni jaañ joowul sagaala yaay mu teeri way joowul sagaal lebu mu teeri ay joowul sagaal mu nem njeeti joowul sagaal mu teeri juul sagal ayaay mu teer juul sagal ayaay mu teer ngam juul sagal ayaay mu teer ngam sambay jógal juul sagal ayaay mu teer gal gi teer juul sagal ayaay mu teer juul sagal mu dem jiij juul sagal ayaay mu teer ngam juul sagal mu teer jawul sa ni sini samba ay jawul sa gaalu teer ngaan jawul sa gaali ay mu teer kir ko de buru mbaaw nang ko bujji nin ni pinda waasu waa mbaaw amma ku mbaaw ma ko bub ma tay bay amma ku mbay ci mbaaw seen yaay leen di xajaane fuy jàpp ñaaw sun sikki sama yaay junay mariya yi ndo yibanni ngoni sanumi ci gijjo fatmata ndo yibanni ngoni sanoy samam ummi gij ndo yibanni ngoni sanoy samam sun sikki sama sun wasu ibrahim wasu ngoni jagmin kala ganani kal wàccina ñu mën mi ci mbaaw ñi nga mën a mel yaay mi jubbi waaye nag fanul yaay xarit yi gam yaay aadama Kiidombor ya imrija ñokkon ya imriji so yaa jamma ko janngaloon nima boy way dakar de cibole fanul yaayi xaliga i gammu ya yaale maar Kiidombor ya imrija ñokkon ya imriji am ngi ndebe timay koddu maar ak faambay koddu maar faambay koddu maar ak warim bay koddu maar bokk ndey ak baay warim bay moo jur fanul wadda ak dombul wadda جمر وداجر من خجن جاي ما وديا مريجان جمر وديا واي كورسي سمرا ديا كورسي موجور غوري كورنو يك مالكتي نوي مالكتي نوي سمام ak kumba jóg ku ndoj alasaan mbay nooy bokk ndey ak baay binta jóob ay sa maam nu jël sa maam binta jóob jobay baayam nu jël binta jóob bi jabe jóob jéng ko laamin si la mi natt booy laamin si la mi natt booy ما مصال سلم تبوي ما مصال سلم تبوي خالي مسلم تبوي ما تصل سين باي ما تصل خري جوك من بين يا جي دكار فو جار بنيا نجولو نجولو نجول اي نجول گني جنجي واو بلي جيمي دنگا من نجيبي تجو بي جبن جوب جين كل لامي سلم تبوي لامي سلم تبوي ما مصال سلم تبوي ما مصال سلم تبوي xaali masalam ne tëbbooyi ma tasi laa seen baay ma tasi la xarit jóg mën a béng yaay jël fooy jaar ba ñaaw njoolo njoolo njool ay njool nga jigéen ngay wow sàmb lay jëmi dangaa dafay baay na jëmi tëjoo bi jëme jóob jéng ko laamin si mi na tëbbooyi laamin si la mi na tëbbooyi maamu faal si la mi na tëbbooyi maamu faal si la mi na tëbbooyi xaali masalam ne tëbbooyi ma tasi laa seen baay mata sa xarit jóg mën a bëgg yaa jël sëñ Dakar fooy jaar ba ñaaw njoolo njoolo njool ay njool nga njëgën ngay wow samb lay gébi de ngaaw ma ne xalaat bay bi rek ndooy ma yóbbal ndooy bàyyi bi rek may sa bi rek di taaw njoogu di biir Malick njoogi di ba ko ba ne xubee maram njaay ngay jëmbe dini beñ laaw la cat laaw dafa la la ma lam yi laaw la ma xel waaye li bëgg yaa ko moom bu nu yàlla bëgg na lu bàyyee ek yow ay jaraaf dundal ba mu may di baawaan jaraaf na ñaari yoon ni mën am el yàq jom mu def ñaar sax bu jubee gaar daal ak korne ma ne ñoom lañ ma booleel ñeneen ña ñu nga fële sa tubaab jalaaw ne gëwëli tubaab jalaaw la defee na conférence ma ne leen kon doxalee noo wala nu mu doxee nii wala léeg-léeg noo waaye dinaa leen fàttali benn wax pour wan leen ji nga xamante ne sëriñ si moo fi tax a ñëw waaye taxaw Ngor taxaw Yoff taxaw mag ñi bi nga xamante ne Yoff moo lay jàppoor waxtaanoon nañ fële sa buy perkaat kabeer bii nu tollee bii guy ko guy guy perkaal dañ doon seet lii tax mu daan doxale noo ba jëkk ba ne lu dugg Ndakaaru bii nga xamante ne yàlla def na loogu ba pare ba jàmboor de mag ñi dalu ne nanu waxtaanoon sunu biir bul xool ndax ñii noo Dakar dinañu dugg Dakar wala duñ fi dugg wax yu mag ñee de calma si ma retenir sa affaire bii ñu demee mag ñi Dakar Dakar di mais mag ñi ne doolul nañu seetaat affaire programme waat ñu daje fii mais bii nu dajee mag ñi dañu duggaat bu xëddoo daal di wax ne réew mi ab limu dina ko indi mais man ko mag ñi waxee yàgg na war na mat ay trente ans trente et quelques années que man ma suma jot su loxol mag Pape Aldiagne nii mu ngi toog tey nekk ab jaraaf comme man waaye nag na baayam su ma problème mu xamoon naa li mu lekkiroon yëpp mën na ko aal ba léegi waaw tey jii fii nu toll bii mag ñi gisee ba waxee noonu ba pare muy seetlu di xool di xool di xool ba ñu ëgsee fii wax nanu lii nu day la nekk wax nanu ko waaye lii ëpp importance moo la fokkanu muñ xam ne ñun ñëpp ay mbokk lañ lii xew na Alaaji Ablaay baax gi ma xam si yow ak tey li ma xam si yow ak bëgg jàmm ak li ma xam si yow ak négocier fekk bu mel na te ba mu meri parce que su ma naan tàggat léeg-léeg yow mii say wax lay déglu daal di bàyyi di si mbool mbooloo mii nga xamante toog lii leen doon fàttali mooy que ne bés bu ñàkk mu xool daaw bés boogaa ba ëgg see kenn ku nekk na xoolal si bopp mais nag si loolu dama leen di bàyyil xel ne nun lébu gi oote nañ fii si monument bi oote jàmm la Baye Blay balaa tànn kaa la àndil ah ñëw la fekk boo tey parce nun lébu gi cette fois-ci ba njëkkoon mag ñi lii fi amoon yëpp amatuñu ministre maanaam CP amuñu côté ay ministre amuñu côté ay directeur muy gone yi ngi leen somme kenn di ko bon naka lan war loolu moo waral ma waxaat yéen ci anim bii comprendre li xew Ablaye Matar oo na ma keroog jaar ne ma lii ngeen dinaa ñëw te dinaa yónnee juróomi personne yu ñëw jàppale leen organisation organisation bi yëpp lenn la dañu bëgg a xam ñun lan la ñuy sédd si Sénégal ñuy gën a ngeen liggéey si kaw te lii ma wax am na fu wér fu ma koy teg kon si tegalal lébu tegalal si keneen ku di koy jàppoo nga ne ah kan lébu fële ñu embauché ko ni ko bàyyi na ko Isso se faz num lugar que se duvida. Num lugar da partido, num lugar da ngeen baal ma rek parce que xam naa affaire bi fu mu toll ak ni mu demee heure cere yi jot na pour laa déggee mais lii la bëgg mooy bés bu ñu toogee ba ñoom ñu def le cadre bii la ñuy oote allah yab laay bal fàtte le cadre de fokk ñoom le quatre bu ñu toogee waxtaan ñun ñëpp lébu fii bambam gi loolu ay ñëw bu ñëwee bu soobee yàlla ba nu waxtaanee foofu ba pare dinañu jël nag parti ba ko ba ñu toogee ba waxtaan parce si d'accord si lii wax ba boobaa ñu yëkkati ñuy kàddu ne Kambert voté leen diw duñu ko ragal parce que on en dañu toog la kulli kenn kala paccangaa seen kaw yàlla mii dëne yàlla dina ñu sutura mag ñi no bàyyi ni fi ndëg du lekk ba du ba ëllëg lekk ba ëllëg bool duñu peccal kenn duñu benn programme bu ñuy def bu dul taxawe fula yàlla mii dëne yàlla leen sutura ala yow laay sa baax gi ma gis dama lay ñaanal li ma bëgg si loo bëgg yàlla ba te yàlla waaye di la ay at parce que soo fi yàggee daf ñuy lu ëpp cent quarante quatre ans yàlla tegaat ci tuuti mu la wis gaa xamante ne dana ko defal adieu yoo yàlla la yàlla doon jàpp mbokk yi jërëjëf moom yi daaneel ay kàddoom nag kii di jaraaf di Cap Vert El Hadji Youssou Ndoye daan na xamal mbooloo ma fa woon muy jaraaf yi ak chef de coutumier yi nekk ci fukki pénc ñaar yu Ndakaaru fas yéene nañoo amal ndaje bu mag te lañ ca namm nag mooy fas yéene def benn say ngir jàmmaarloog ñëpp ñi nga xam ne dañoo taxaw temm ngir naxasal li nga xam ni mooy moomeel wala ak ak yelleefu askanu lébu fii ci diwaanu Ndakaaru nga xam ni seeni maam ñoo ko sancoon ñi war ak ñi jaf duñu mën a yem yaa leen man yaa leen gan yaa leen man yaa leen gan woor na Baay Abdoulaye dañuy ñaan ci buur bi yàlla Cheikh Abdoulaye ànd ak yow sa candidat yóbbu ko biir pale si barke Baay Abdoulaye kii jaf ak kii wax duñu mën a yem yaa leen gaan war na baay Abdoulaay ni ñaan sama borom mu ful sa fan ba nga jël yoof gi le ànd ak kilifa yoof yi ànd ak sa président ba biir pale mun na nekk barke bay laay